ben marab bu nek bay 1000 tonnes dara ci mom xam nga danañuy wax jiw bëgg ñu sax ñu jox ñu jiw matériel di koy defar rek wax moy li ma doon wax ni nga wax ni léegi ministre bi bind na ko lettre lettre yi sal yaay ni ngi nii laaj jox ñu na lettre am jox lettre ministre bi ak suñu yëpp ñun tracteur la ñuy soxla ci boba yow comme yaa ngi ñu ngi la koy wax pour ñu gëna yaatal suñu liggéey su soo fi ñuy wax noonu ñun liñ ci man te toj ko yow bu dee sa côté garab kese rek mun naa la ci defal loo xam ne fi ma féete fii boo taxawee léegi booy yëg na nga xool jumaa bi ci biir di ko wër ay garab te benn amu fi woon naat la soo demee ci àll bi dinaa fi def loo xam ne nii ci kanam tuuti ci ay garab kenn du xam nu mu toll fii nii maa ngi placé def kon bu dee garab mën naa ko defar bu dee li ñuy lekk mën nañ ko bay bu dee lu ñuy naan mën nañ ko génne koo xam ne day génne ndox di génne lekk di taxawal garab ah kooku boo ko jàppee sa bopp nga jàppale comme yow da nga bëgg a defar sa réew kon kooku ko nekk dëgg la simplicité lu baax ci ku nekk la mais mënul nekk simple comme nii rek ni ko nii ñuy waxee noonu ñu gën a gën joxaat loolu laa wax ne saa yu ma toogee moom laa koy gën a conseillé parce que xañ ne régime bi passé la ñuy gisee ñoom seen relation ak kilifa diine yi ba tax biñ ñëwee ñu jàpp ne dañ doon fopp seen alal di ko jox kilifa diine yi tax kilifa diine yi dañ leen tegoon en côté ba ni ñu waroon dundeenteeg ñun ñaareel yi passé pour ñu liggéey yow ministre nga xam nga ni kilifa yaa ngi liggéey mais dañu téye seen bopp booy seetlu bintu pale bariwul ay ay sëriñ yu fay jaar bariwul bu njëkk dañuy dugg foofu génn waxanteeg ñoom génn dem bitim réew jëli alal dugal ci réew mi jël fa ay tracteur ñoo bay jël fa ay li mais biñu ñu déggee baat boobu dañu xaw a taxaw nekk ci seen bopp tey seen bopp te loolu même bu nee réew mee ngi dox ci kanam dafa am lu mu yàq xam nga ki ki ki na jàppal benn en di la xaar doo ko xam lu suur bi mu wan la ni mere naa mais mu amal la nag xol bu neex di la xaar moo gën parce que man na boppam dañu dañuy liggéey kon nañ nañ ñu jàpp ni ñu war a jàppee te bañ ñu jàppee ñu duñu ay homme politique yuy dugg ci terrain bi di yàq. bu ñu maasalee itam généralisé comme marabu yëpp sëriñ bi nga xam ne moom day ñëw foofu rek nekk ci mitin bi nga ko benn ma rek genn fooyee ko tabax benn oto def benn nangu nekk ci dëkk bi ñëpp duñ ñoom man mosuma dem bureau dem ma palais dem ma fenn liggéeykat la te man xam naa ay mille personnes yu mel ni man ñu ci àll bi yor ay taalibe yor ay daara di yar ay dongo fii nii rek ñu ngi plus de 250 personnes ñu ngi fi te duñu yalwaan te dañuy jàng kenn du buuse kenn fayu man maa leen yor man sama buuse sax suñu lekk sax te boo yoree lu toll noonu ci ci ci dong am na sëriñ yoo xam ne ne xam naa fi mu nekk nii 15000 personnes yu nekk ci daaraam nekkuñu sax ci dëkk bi duñ génn bopp duñu yalwaan duñu yàq. moom moo leen dundal boppam bis bu nekk mu fay la ëpp mini un million huit cent ci dépense chaque jour. kooku est ce que citoyen simple la ah. toj àll yu toll noonu ci digg àll ba barki dem am na koo xam ne gis naa mu génne mille cinq cent tonnes ci ci dugub di ko séddale ci mosquée benn sëriñ def na loolu koo xam ne xam naa ko te moo ko bay. ah waaw ah, kooku kay tey boo demee jàppale ko matériel te jàppee ko ni nga jàppee si bopp. du am homme d'état mais chef de lycée la boo xam ne ni muy produire yow homme d'état bi mënoo ko. parce que li ko topp ci ginnaaw mu leen di dundal waa ngoon te nekkuñ ci dëkk bi ñoom duñ toj kaar duñ lakk pël duñ baaree tël duñ def dara ñu nga ci àll ba di jàng. di liggéey te lu ñu am dugal ko ci marché bi. ñooñu considéré leen baax na loolu nag lii lii ma wax nii nii loolu président moo ko lii ma la wax nii. waaw moo tax muy dégg. voilà li nga xam ne gis naa koo xam ni mooy wax bi yama yóbbante yow parce que bu la gisoon loolu la lay wax. waaw ñu ngi soxla relation boo xam ne daal dañuy jàpp ni ñu jàpp seen bopp ñu jàpp leen noonu. ñun du duñu leen xatal ci seen photo yi pour suñu bokk ñoom. ñu nag ci génnee suñu loxo bu feeñ parce que ñay ñay samp photo yi ba amaana ci ñun lañuy bokk. kon soxla nañu jàppante bi yëgante bi bu ñuy mere nañu mere politicien bi comme ñoom mais chef religieux bi yoonam nekku ci dañu dañoo toogoon suñuy daara yor suñuy kër moom moo fay jógee ne damaa bëgg Sénégal ñëw toog loo xam te moom jaar na ci loo xam ne moom bi muy wut dafay jaar def keneen jaar ci def ko soo ko amee ba pare na nga respecté ko ah bu amee ku yàq ka fi jaaroon bañ fal ko te deful koo moo yàq. mais du ki nga nekk si loolu maa ngi koy digalaat moom moom wax naa ko ni yi nekk Thiès gépp mais comme moom moo leen yi def en cent pour cent ñoom duñu ko ko wax yow nag yaa moom sa bopp moom côté bu la ci dugal waaw kon yow di nga mën a waxtaan di koy bosen nga jàppee ci dëkk bi mais ñooñu moom xam naa duñu ko ko wax ñëw nañu fi mais duñu ko ko wax